manifestation yi ñu wax ne moom la ñuy jibal incha allah danañ ci danañ ci continuer waxtaan ak ñi ñu ciy waxtaanal mooy ñeneen ñi nga xamante ne ñun ak ñoom ñoo nekk ci mbedd mi saa su ne waaye buñ ci paree rek ba noppi ba war koo jibal di ngeen ci am information yi waaye xam naa ne yàggatul manifestation yi nag comme suñuy waa ji ni ko waxee li ko wund du rek kilifa ndax yoon a ngi jéng 2015 lañ ko lancé woon ci jamonoy waa Colobane ya ci yi bi nga xamante ne Macky Sall ngi commencé di gis ñu gis manipulation bi am ci biir justice Sénégal ci lañ njëkkoon wax yoone ngi jeng boo xoolee internet di nga ko gis kon du tey lañ ko tàmbali waaye c'est vrai c'est vrai kaaw kilifa bi dafa ñëw dëggal ko moo tax ñu war a jëmmalaat yoon a ngi jeng boobu pour wàccaat ci tali bi parce que à travers kilifa mun nañ cee jaar fajaale problème wu yeneen i sénégalais yoo xam ne ña nga ca situation bi kilifa tollu tey looloo waral loole et nous sommes très à pour le dire beneen bi mooy euh, waaw xam nga ceer bu fekkee dafa nekk ci biir kaso lu nekk ci téléphone am génn ñett nit ñoo ko mën a génne mooy avocat am la wala gendarmerie la wala waa parquet la ñett ñooñu rek foofu rek la mën a jaar. lu ñu yaakaaroon ci Thier xaw ma nag lan ngeen yaakaaroon ci Thier sincèrement. loolu duma ci dugg du ma dugg ci lu loo xamante ne ci dossier bi la nekk loolu duma ci dugg duma ci sori li ma mën a wax daal mooy ne jàpp nañ ko ci kaso bi ci ginnaawam ñu ngi ko jàpp le 14 juillet première vidéo mi ngi génn le 24 juillet donc am na fukki fan ci diggante bi ñu ko jàppee ak bi vidéo yi di génn kon ka yor vidéo yi ba génne ko kooku. moom la ñuy protéger jamono ji moom la ñuy bañ nit ñi xam ko parce que bu ko nit ñi xamee Aliou Sané wax na la ko benn pièce la ci puzzle bi lu bëri dana leer ci dossier bi kon lu tax ñu koy protéger ak kan moo koy protéger na cybercriminalité def liggéeyam ñun loolu rek lañ ñaan loolu la ñu wax ndax ñun ay noonu leeral lañ ndax dañoo duut baaraam leeral noo duutuñu baaraam leeral leeral média la c'est un bu am bu jot information diffusée la ko ci daan wala la ko ci dul daan loolu moom ak yoon li yoon wax ci texte yi wax loolu bu yeggee mook yoon ci texte yi dañ ko wax loolu ñun amuñu problème ak benn média te duñu am problème ak média parce que média yi seen rôle ngeen di def mais nag bu ñu yeggee ca jàppandaw ga comme mënu ma cee wax ci mbirum dossier bi foofu laa ci mën a yem ci jamono ji foofu laa ci mën a yem. beneen mbir bi beneen mbir bi bi. non non c'est beneen beneen mbir bi bëggoon naa ci taxaw trop parce que. yàgg nañu assimiler affaire ñoom kilifa bi ak affaire député yi te ba ñu defee l'enquête ca biir dig ci ñaari waxtu xam nañ ne ñaari affaires yi bokkut parce que tamit kilifa vidéo bi génn depuis juillet ñi ngi ko soog a oo 7 septembre huit septembre lañ ko oo parce que le 6 septembre affaire u passeport diplomatique yi ci député yi ñu ciy tudd dafa éclaté ñu bëgg a créer seen contre-feu bëgg a indi lënt lënt ak lëndëm lëndëm ci xelu sénégalais yi looloo tax ñu woo kilifa tey jii suñ tuddul woon ay député ci mbirum passeport diplomatique goo mën a dinañ oo kilifa parce que amuñu élément boobu noonu parce que vidéo yoo noonu c'est irrecevable devant la justice kon ñoom procureur ñoo la gën a xam li ñu def vidéo yi ñoom xam nañ ne c'est illégal nga woo ci doomu aadama waaye pour créer seen contre-feu parce que wax nañ ay député Benno Bokk Yaakaar ci mbirum passeport diplomatique te dégg nañ ci vidéo bi mbirum passeport diplomatique ñu jéem a créer le lien mais bi ñu l'enquêté xam nañ ne amul lien leer na la preuve bi kilifa ak Simon di génn dig ñu leen di yóbbu parquet lañ wax mooy escroquerie kon bu kenn indil ci amal amalgame boobu di wax naan dossier passeport ak présumé non non no non ñaari dossiers yi bokkul te bu leen kenn tëkkaleeti bokkul loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg bu leen kenn tëkkale parce que bokkul maintenant médiation pour lan nit ki droit am la àqam ak yelleefam la yoon moo ko ko may nañ ko may liberté provisoire nañ leen may liberté provisoire nañu leen atte ñun loolu rek la ñu wax loolu rek la ñaan kon jàpp naa ne looloo fi jiboon ci ay question euh, mu ne mal de vidéos par rapport à l'autorité

teg bi ñu teg ak fonk bi ñu fonk Y'en a ndax j'ai vu des sénégalais yu naqarlu yu amul leen métti gee vu des sénégalais yoo xamante ne nii si lañ si laay soog man comprendre vraiment si niveau bi ñu bi ñu aj suñu jëmm yu amul solo yii kon dama leen di gën a delloo njukkal ñëpp ñuy jàppale waaye nag dama leen di ñaaxaat ci situation bi que ne nag aujourd'hui ñun ak ñoom ñëpp ñoo toogoon di observer am yaakaar que justice bi dana def liggéey bi war ci ci dossier bii waaye safaan wala ñu gis moo tax aujourd'hui amatul toog di xaar dañu bugg ñu régler cette histoire lu mu gën a gaawee kon sénégalais yi ci côté boobu dama leen di wax nga ngàcce ngalaam waaye nag làbbali fas terewut fas bi moom il faut ñu gën koo làbbali kon di ñaan sénégalais yi di woo sénégalais yi ne leen gis ngeen taxawaay bi ci Y'en a am bi mbir mi taxawee kon nag tey bu ñu jógee te yéen xam ngeen li waral ñu jóg mooy que ne dañu toog gis yoon nag di nangu la kilifa moom muy ay ay àqam kon duñ nag setaan yoon di nangu ay àqu kilifa waaw kon nag looloo waral looloo wundu woon tey suñu waxtaan wi ak taskatu xibaar yi di wax ne ay fan yu néew dinañ jibal plan d'action bi ñu teg dinañ leen ko yeggee incha allahu rabbi bu ñu noppee ci waxtaan ak ñëpp ñu ngi ciy waxtaan ak sénégalais yi kon dina wax yéen ñi doon taaxir lu jërë ngeen jëf. wasalaam merci